أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه Alhamdulillah, donc nous sommes ici pour l'inauguration de ce puits. Euh, à celui qui a financé ce puits, nous espérons qu'Allah subhanahu le récompense et qu'il lui donne justement ce que cette personne cherchait en finançant ce puits qu'Allah lui accorde. Bon, tey dañ ñëw fii pour inaugurer teen bi nga xam ne defoon nañ ko fi depuis defe naa ne li mu mat at de su su ma juumul jublaayu teen bi nag du dara pour euh, teggil waa dëkk bi coono loolu moo tax kenn ci ñun euh, yónni ñu pour ñu ñëw gasal leen teen. dina mën a dimbali waa dëkk bi teggil leen jafe-jafe ndox. képp ku fi naan maanaam mu nekkal tuyaaba nga xam ne moo fi def xaalisam parce que ko fi def daf koy def te yàlla tax ndax mënoon na ko defee beneen dëkk xamul fii fii du fi mës a ñëw du mës a ñëw naan ci ndox bi kon waa dëkk bi la ñëw pour jàppale te di yaakaar yàlla subhanahu wa taala mu daal koy yool ci loolu nga xamante ne moom la def kon dañ koy ñaan yàlla subhanahu wa mu nangul ko jëfam boobu aussi tamit ngeen jàppale ñu sàmmal ñu lii. ginnaaw yàlla sant neen bi sant am na fu mu tam man mi nekk mag yéen itam nekk mag ki dëkk bi di wax maa leen gën a sant te bi bañ ko commencé ba tey waññoon suñu coono kat ndax mu ngi nii soriwul dëkk bi te booba dañ doon jóg bi ñetti kilomètre di ko dox di dem Jawle maa ngi ni Jawle daal doon roote tak sama set bot fu set ki ko fi def nii ki li ma ko ñaanal moom mu sax fi lu nekkoon coono lu ko bu nekk lu ko xam ne lu ko daal di tiis yàlla ko yor saafara yéen nga xam ne yéen ànd moom lu leen bugg a dal ci loo xam ne safaan la yàlla ko saafara maa leen fan gudd aw bi yam ubbi seen war fekk xiiwal yàlla mën na ko. di leen di sant ki foo def yal na lu mu bugg ci yiw yal na ko yàlla may sante nañ ko gërëm nañ ko. ñun dañ doon toog balaa ngay julli sax sa oom yi du ñu yegg ci suuf ndax ndoxu robinet bi te bañ ko bañ commencé ne am nañ teen dañoo ci dañoo am yaakaar ne bu ñu naanee teen bi. xëy na loolu dana nañu bay ndax ndoxum forage bi moom jiguñu même jigéen ñi moom jiguñu yéen ñi ngi yal na leen yàlla delloo ci jàmm jàmm ndax santi nañ leen gërëm nañ waaw. suñu lépp a wàññeeku ndax euh, sentir nañu suñu wargu yaram suñu bët yeeg suñu oom yi léegi moom lépp baax na ndax suñu oom yi daf doon métti bi ñuy naan robinet bi mais bañ ñu commencé teen bi ba léegi yëpp kii na oyof na daal ndox mi neex na trop neex na trop moom bëri na neex na ñi koy dox daal di ñu ko indi yal na leen yàlla yokkal yiw ak wër yal na leen yàlla defal li ngeen bëgg ci àddina seen doyen bi ngeen xam ne moom moo indi teen bi ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko jàmm may ko wër ak wérle may ko yokkute yéen ñii ngeen xamante ni yéen ay ànd moom itam ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen ñaanal yàlla may leen jàmm may leen wér ak wér li ubbi xewal yi bu baax a baax teen nag suñ ko sañoon moom la ñuy naan parce que teen moo gën a baax ne ko robinet waaw soo déggee nit ñi bariwul nag dafa am benn euh, décès bu am ci boori jaxaw moo tax ñu bëri mënuñoo ñëw wante mënoon nañu ëpp nii daal tombé aussi livernage bi ñu bëri dañoo dem tool di leen ñaanal yàlla may leen jàmm ngeen dal ak jàmm ñibbeeg jàmm ak salaam Parmi les difficultés que nous, trouvons parfois dans le fait de creuser un puits, c'est que vous trouvez ce genre de pierre, comme celle-ci d'ailleurs, ou comme celle-là, comme, celle comme vous pouvez voir, qui sont, assez, sont très dures. Donc devoir creuser ça, vous imaginez les difficultés. Donc c'est pour cela que ce puits a pris autant de temps, presque un an. Il faut savoir que quatre puisatiers se sont succédés inna Comme on l'a dit, après la difficulté, bien la facilité. Donc, Alhamdulillah, au quatrième, finalement, ils ont trouvé l'eau. Une eau qui est très claire, très bonne, comme le disent les habitants. Euh, si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est parce que nous sommes tombés sur un décès et c'est aussi l'hivernage. Donc ces deux causes font qu'il euh, n'y a pas beaucoup de monde, mais alhamdoulilah, ils ont parlé au nom de tous les habitants. Et euh, chacun vous remercie, chacun euh, prie pour vous, chacun vous bénit pour ce bienfait que vous l'avez accordé. Ce bienfait bien sûr qui est à Allah mais vous en êtes la cause. Donc qu'Allah vous récompense pour ce bienfait. Nous vous disons donc à bientôt pour des prochaines inaugurations, qu'Allah nous permette de faire ce genre de bonnes œuvres. A bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa wa Sana tunay ko mundak ulog e ginayong